à la salle néonatologie boobu incendie amoon na le 24 avril 2021 buñ ci sukkandikoo incendie boobu waral na quatre bébés yoo xam ne nouveau-nés lañ ñàkkoon nañ ci seen bakkan kii lii si directeur bi Abdou Sarr moom moo ba loolu xewee dafa dép dafa annoncé démission am à travers la presse bu ñu sukkandikuwee si aussi tamit conseil des ministres boo xam ne amaloon nañ ko le mercredi 28 avril ma kii di le président son excellence le président Macky Sall ak ministre mi wax na Abdoulaye Diouf Sarr mu leeral incendie boobu noonu lu fi mën a am aussi tamit mu jël ay mesures yoo xam ne mesures préventives lay nekk. pour euh, hôpital bi loolu aussi tamit mën nañ ci yokk que ni moom tamit nommé na nouveau directeur hôpital Magatte Lô euh, ci turu abibu Cissé Abibou Cissé moom mën nañ jàpp ne chirurgien dentiste la mais aussi économiste de la santé ñuy wéyal ba léegi actualité bi ci mu ñëw ci suppression de loi sur le parrainage gis nañ ne la cour de justice de la CEDEAO demandé na état wu Sénégal ñu annulé lii di parrainage boo xam ne dañ ko adapté woon fële ci assemblée nationale en 2018 bu ñu sukkandikuwee décision bi lu ko waral mooy maanaam que ni benn recours boo xam ne. benn recours boo xam ne l'union sociale libérale de l' avocat Abdoulaye Tine ñoom ñoo ko déposé woon CEDEAO nag jox na état Sénégal délai wu mois. bu ñuy wéy ba tey bu ñu gisee Mame Mbaye Niang gis nañ ne dafa porter plainte kii di Abdou Karim Xrum Xax lu waral loolu mooy gis nañ ne Abdou Karim Xrum Xax moomu dafa yëkk ci ay propos jëmale ko ci Mame Mbaye mooy maanaam ne Mame Mbaye Niang dafa bëggoon démissionner ci mouvance présidentielle bi deux jours après manifestation yi jotoon xew ci mois de mars ci affaire Sonko bi en plus de cela nee na aussi tamit Mame Mbaye Niang dafa bëggoon rejoindre lii di parti Pastef Mame Mbaye Niang gis ne propos yooyu noonu Abdou Karim Xrum Xax yëkkati daf ko def genre diffamation ba waral mu porté ko plainte bu ñu ñëwee ci fond de force Covid 19 gis nañ ne le président de la république Macky Sall génnee na plus de cinquante millions jagleel ko lii di dawalkatu Jakarta yi pour dimbali leen ci effet Covid 19 bi gis nañ ne ba ñu séddoowee que ni ku ci nekk ci ñoom mën nañ jàpp ne vingt et mille huit cent la jot a am ci part bu nekk ko su nekk ci ñoom. ñu ñëw ci liberté de la presse gis nañ ne Sénégal fii la presse est menacée le trois mais bii nii ñuy dégtal euh, la presse nationale même internationale ñoom dañuy fêter seen journée mondiale de la presse occasion la mun nañ mën a wax pour euh, dirigeant yi diriger ñi nekk ci média yi nekk ci presse Sénégal bi gën ci sukkandiku gën ci defaraat press bi gën ci aussi liggéeyaat tegaat ay critères yu wóor. ñu ñëw ci laylatul xadr bi gis nañ ne chaque mois de Ramadan communauté mouride bi ak yeneen euh, këru diine yépp dañuy dañuy dundal guddi gi laylatul xadr communauté mouride bi moom euh, jeudi bi passé le 29 ñoom lañ dundal seen guddi gi laylatul xadri ñu ci bëri gis nañ ne ñu ngi woon euh, fële ca jumaa wu masalikul jinaan pour def fa ay ñaan ak ay prière gën a dundal guddi gi ñuy ñaan juste que lépp loo xam ne waaye ñaan yow ñaan na ko fa rek yal na ko suñu borom bi nangu ñuy jeexaleek euh, comme niñ koy waxee rek tey lañ jagleel fête du travail maanaam bépp travailleur boo xam ne yow motivé wu nga yow dëggu nga ci sa liggéey yaa ngi ci daw lépp rek ngir euh, mën a liggéey bu baax rek tey lañ jagleel feet yi ñu ci bëri nag mën nañ jàpp ne ampleur bi mu amoon au début gars yi di ko feetee di ko xaar amatul léegi mën nañ jàpp ne ñu ci bëri jugé wuñ sax nécessaire à ce que ñu feete bés bi lu luñ koy remplacer mën nañ jàpp ne ñu ci bëri cahier de doléance lay doon ak ay ñaxtu ci seen bërëbu liggéeyukaay. mbokk yi maa leen di sant di leen gërëm li moo fi jotoon xew ci actualité de la semaine am mbégte bànneex di leen ko jagleel di leen jox rendez-vous à bientôt incha allah et d'ici la portez-vous bien et prenez bien soin de vous merci.